xaaju xaalis bi nga xam ni fidélité euh, bi mbappe am ak Paris Saint-Germain minuit jot na ca France léegi xaaj ba muy 20 millions d'euros Mbappé dana ko laal bu ko reyal jëndee bu ko jëndul moo ca yam fidélité ba 40 millions d'euros la benn mocca bi nag dana ko jot tey jii ndax wi jot na mooy borom kii di démbale ngeen gis ko di doomu français international di football ca Barcelone moom mais nag daanaka fi mu toll nii ngorom day bëgg a jeex mbax ma nga jox goney Paris yi daanaka rek bëgg Barcelone négocier ak ñoom bu ko defee mu mën a dem fële ca Paris Saint-Germain loole tamit méngoowul ak li nga xam ne waxante woon ak gaañi fekk na booba Kylian Mbappé ngeen gis ko bala nu ñëw ci li nga xam ne mooy prime euh, fidélité bi ñu jiitu ci plante bi nga xam ne Paris Saint-Germain mi ngi envisagé euh, bu ngeen déggee maanaam mi ngi coytu pour yóbbu ab pelante fële ca FIFA porte pelante ba nag Real Madrid la jàpp ni maanaam na mu doxee euh, fële ca ca li nga xam ne mooy équipe bii di diggante Paris Saint-Germain Mbappé ndax jàpp na ne mi ngi ci contrat bu ma sëkk ñu koy suxlu suxlu googee nag naqari na waa Paris Saint-Germain te loolee légalul ñu jàpp ni war nañoo mën a porter plainte Real Madrid beneen bi ci des mooy Mbappé ñi ngi koy wax léegi moom moomee nga xam ni Paris Saint-Germain amaat na jafe-jafe beneen wala Mbappé daan na ko ndax 20 millions d'euros dana ko compter liquide liquide jox ko kii di Kylian Mbappé prime de fidélité donte Real jënd na ko ginnaaw gi loolee lépp amagul waaye li leer gone gi xaalis bi mu doon lijjanti dana ca jot fekk démbale bëgg naa dem fële ca Paris Saint-Germain lu bett ñëpp nag ndax moom moomee di gone gi joxe na accord pour gars yi négocier ak équipe bi la nga xam ne mooy Barcelone. Barcelone nag boo amul sens nag bu demul ba amatul fu mu jëm bu ma doon mooma dama ci laxas jaan jaan ja mooy téeméeri million d'euro laay fexe fakkastalu ba ci cinquante million d'euro bu ko defee xaalis boobee ma mën caa am yeneen footballkat yoo xam ni ñooy may gënal démbale donte démbale jàmbaar la. Sénégal nërmeelatu na ci digganteem ak équipe bi di Burkina Faso gone yi daanaka dama yaakaar ne dañoo yëg seen bopp victoire te ne leen ca compétition ba nga xam ne daanaka ña ngi koy dàbbar ñi bu baax a baax.